topp sunu ginnaaw lan la ñu xëyee ñu tàmbali ko ak las mu ngi noonu régulation des télécoms le DG de l'ARTP jette des nouvelles bases loolu euh, moom la journal bi xëyee tey ñetti inspecteur à la tête de l'État Bougane alerte sur euh, la République des impotiers qui menacent les investisseurs <laughs> encore Bougane toujours Bougane euh, beaucoup de Bougane mi ngi noonu donc construction de bâtiments travaux publics seuls laboratoire en règle hmm, lu toll ci li nga xamante ni rek euh, moom mooy 17 laboratoire euh, euh, yoo xamante ni ñi ci nekk en règle di 17 ñoom ñoo ci nekk en règle ci ay bâtiment public yoo xamante ni war nañu ko defar fii nii nga xamante ni moom moo di Sénégal ñu ñëw ci beneen yéenikaay naka la xëyee tey Moussa ñu ñëw ci wal Walf Quotidien Walf Quotidien nag wax nañ ko mooy directeur ARTP dafa bëgg concilier boo boole l'innovation la concurrence concurrence saine maanaam fexe ba concurrence bi mu bañ a tee mu bañ a tee lëmbajoo maanaam ñi ëpp doole nekk ci kaw ñi néew doole mais concurrence saine la ko bëggee moom euh, ñu jiite euh, télécommunication alors euh, prix de la viande une hausse durée dure à avaler dafa yokku tamit quoi qu'on puisse dire xam nga tey jii boo demee Seera Euh, Seras euh, li ñu lay jaayee kilo bi ak boo duggee si marché bi li ñu lay jaayee kilo bi c'est diamétralement opposé xam nga tey ngay wax 2600 petit ruminant le kilo ah euh, loolu c'est extrême c'est c'est extrême le nu mu tuddati liibar liibar bi liibar moom la ñuy jaayee 2000 nangam kilo bi yegg na ci 2500 si je ne me trompe pas ci marché bi mooy ndawal bi donc lu sénégalais moyen se contente des tripes maanaam mbàq yi lan ñu jox sama classe gi nga xamante ne yoruñu lu bari 2600 ruminants et 550 bovins abattus par jour pour la seule région de Dakar ñun ndakaaru ñoo fi dàq lekk ndawal kon loolu la journal bi daal di xëyee tey ndax lii lépp euh, Ndakaaru rek lañ koy rey 2600 petits ruminants ak 5 550 bovins dañ koy rey fii Ndakaaru bis bu yàlla sàkk te Ndakaaru moo koy consommé donc ñëw na si bu baax a baax responsabilité euh, ci euh, série accident yi mooy li doon wax. wax léegi Ousmane Sonko nag sans frein moom instant bi amul frein taxawatul ndax dafa bëgg li nga xamante ni rek moom moo di loolu dakk ndax nee na force de l'ordre yi da léegi dinañu fexe ba force de l'ordre yi ñoom ñooy def visite technique yi hii loolu moom bu amee dina yéeme ndax sama classe gi dootuma mën a dootu il faut que lépp mat triangle bi dina mat clé à yi dina mat roue bu roue secours bi dina mat hmm, amatul dinaa dem jëndi ko après ñëwaat ndax lu force de l'ordre yi jiite moom ordre moo ciy tegu donc vous êtes averti euh, moom euh, le premier ministre entre autres dinañ ci ñëw yeneen point yi ñu ñëw ci beneen euh, yéenekaay ni mu xëyee tey bokk na ci le quotidien moom nee na chamboulement diplomatique le grand remplacement à venir déjà Euh, vingtaine d'ambassadeurs et consuls rappelés jaxasoo moom dina am euh, changement moom dina am loolu moom c'est à noter et c'est évident waaye nag euh, Serigne limogeage yu DG ONAS ba léegi nag dese na njaw dese naw xambin ndax nag coow la ma ngay am ci seen diggante ba léegi ndax nag Cheikh Dia bu jàppee ni dañ ko dàq ci lu dul yoon moom dafa war a jox ay explication sénégalais yi jëm ci moom dàq giñ ko dàq naka la waree waaye ba léegi ñu ngi seetlu ne moom le ministre de tutelle bu. bu euh, LONASE moom ba léegi waxul dafa ne pat jàpp njàmburam waxul ba tey indiwul ay explication ci li ko docteur Cheikh Dieng wax loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la journal bi xëyee mais tamit euh, formu euh, fermeture euh, de la frontière gambienne suñu suñu suñu kii yi nu mu tuddati sax suñu camionneurs yi bi ñu yeggee ba ci frontière bi dañoo doon def ay bruit dafa indi ay coow ay wax far yàlla Gambie ne leen donc nañu arrêté nañu tëj frontière bi mais nag après ay pourparlers ay waxtaan am na ba ñu ubbi leen ko waat parce que ñu ngi doon indi foofu ay coow ak ay yu ni mel te Gambien moom xam ngeen ni moom en matière de mbirum militaire moom ñoom caaxaanuñu si. ñu ni léegi benn euh, oto euh, camion dootul traversé ti mais nag jël nañu temps waxtaane ko ba mbir mi daal dinay sotti blocus total boobu la ñu wax mais après mujj naa sotti alors ñu ñëw ci beneen yéenekaay boo xam ne xëy na tey mooy euh, les échos les échos nag conseil interministériel bi sur la sécurité routière euh, Sonko dénonce la corruption et annonce des mesures comme ni ma ko waxee sànq rek moom le premier ministre euh, fi mu nekk nii pes rek la deful ñi nga xam ñooy dawalkatu oto yi parce que nag nee na oto bu fi accidenté te dinañ def li nga xamante ne moom mooy évaluation dinañu def li nga xam ne moo waral accident bi te responsabilité yi dinañ ko situer kon nag ñi nga xam ne ñoo yor seeni oto di ko jox apprenti yi ñu koy dawal faites attention parce que premier ministre caaxaanul ci loolu moom nee na nag euh, nguur gi nekkatul koo xamante ni dafay euh, dafay inter euh, dafay intransigeant maanaam comportement yi nit yi yor muy ay comportement indélicat moom dina ci gën a taxaw bu baax a baax ba loolu mën a dakk ndax accident yi wàññee bu baax a baax fukki fan la la la daal di nekk reste dix jours sans aucune suite maanaam fukki fan la ñu toog te amuñu benn yoon

Euh, réponse ci lettre bi nga xamante ne assemblée nationale yónnee na ko ki nga xam ni mooy son excellence le président Bassirou Diomaye Faye jàll nañ ca beneen wet ga parce que nag tey jii une réunion de bureau convoquée euh, ginnaaw si tey ci ngoon gi xam naa après juma bi ngir ubbi ab session extraordinaire ñoom député yi loolu la ñu d'accord proposition modification règlement intérieur ñu déclenché ko la semaine prochaine ndax diggante boobu euh, Bassirou Diomaye Faye li muy xaar ci conseil constitutionnel dina génn muy ab date ngir désoudre ko waaw wala déet peut euh, on sera servi peut-être dans la semaine qui euh, dans la semaine à venir ñu ñëw ci beneen yéenekaay ni mu xëyee tey ginnaaw les échos muy enquête multiplication de déplacement en France Diomaye ah waaw mi ngi demati demati France le 13 defe naa ni waaw le 13 août hmm? le 15 août ma nga dinañ ko xaar Paris muy ñetteelu wajaas <laughs> boo xamante ni moom euh, président de la République bu Sénégal def na ko foofee ca France sorti Sonko nag ci tirailleurs yi Bassirou Diomaye waxoon na discours mémorial te dina ko wax ci 15 août bi ca Paris président de la République dina nekk ci sommet Chine Afrique en début septembre donc il est attendu à l'Assemblée des Nations Unies 20 ak 27 septembre incha allah le président de la République euh, dinañu xëy na nag dina ñu jox discours boo xamante ne on sera fier te on déjà fier yàlla baax na accusé de diffamation par Mansour Faye Mimi Touré disculpé Hmm, loolu ay taxaw seetlu lañ ciy def parce que d'aucuns disent que Mimi Touré ci jëm boppam euh, attekaay bi da ko ni li nga fi wax yëpp dara lu ci dëgg lu ci mënti am am na ñenn ñoo xamante ne dañu ne Mimi Touré euh, dañ koo ni carrément euh, dañ koo wax le contraire mais loolee xëy na yenn ci journaliste dinañ ci def ay enquête ñu ñëw ci beneen yéenekaay lu mu xëyee tey muy le témoin il a été témoin d'un accident de la route Sonko brise le tabou de la corruption corruption bi maanaam li mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor oto yi li ñuy li ñuy li ñuy dund si tali yi muy euh, euh, nu mu tuddati sax policier yeeg ñenn ñi séq tali yi ñuy séqante seen biir ba tax ñu duppee ko corruption ngir tey ci lu jaarul yoon parce que nag ñu xool xam ne yow sa permis jeex sa nu mu tuddati sax assurance jeex na bu yàgg teewul ñu bàyyi la nga dem li nga xamante ni par exemple moom mooy visite technique ba jeex na bu yàgg pourtant yaa ngi circuler désormais les responsabilités seront situer après chaque accident moom laa wax sànq accident bu am moom bu paree dina nu daal di woo experts yeeg ñi nga xam ne ay techni ay technicien lañu ñu xool ndax benn fil bu ndaw moo ca dagg wala fil boobu lan moo tax raccordé wuñ ko kan moo jaarul yoon kan moo jaar yoon ñu situer responsabilité yi après dal di def ay sanctions nee na nag visite technique yi problème la ci oto yu bari waaye militaires yi moom wala bokk force de l'ordre yi euh, ñu ngi ci wàccaayu jox leen ko ñoom di ko def euh, euh, daw plus de quarante ans normalement dootul daw Sénégal premier ministre yooyu yëpp bokk na ci lu nga xamante ni entre autres loo xamante ni ay mesures la fas yéene koo jël ngir nag wàññi accident yi xam naa ni oto bu am quarante ans te man maa ngi gis feeraay yi mooy kalandoo yii ñuy dugg ñuy daw te pourtant dañuy romb force de l'ordre yi yàlla baax na nañu dem ci beneen yéenekaay ni mu xëyee tey muy nag euh, l'évidence euh, exportation de la ferraille les 30 euh, licences du euh, ministère du commerce euh, crée un malaise ferrailleurs yi nag mës naa leen a dalal mais ferrailleurs yi ñoom li nga xamante ni moo leen gën a intéressé mooy ñu jox leen gëdd ak àq parce que am na ci lu bëri loo xamante ni xëy na tey ñoom ñu ngi koy dund bokk na ci li nga xamante ni rek moom mooy ministre de bi nga xamante ni ñoom xëy na ñoom fa la ñoo jàpp ne fa la ñu jokk nekkul koo xamante ni da leen a jëloon euh, au sérieux autant xaw ma nag ndax bii dina am waaw wala déet mais lu ci mënti am rek lu tolloog ci 30 licences ministère du commerce dafa indi ab malaise l'aise ci biir ñi nga xamante ni nag euh, moom mooy exportation ferraille yi suite à l'incendie d'un daara à Tivaouane euh, député euh, nday gise et compagnie demoon nañu foofu ca Tiwaawoon toog fi nga xam ni mooy incendie bi nga xamante ne moo am foofu ca daara bu nekk foofu ca Tiwaawoon ay ca ñu ñëwaat ci beneen yéenekaay naka la xëyee tey Euh, muy libération euh, information bi mu libéré nag moom moo di euh, détenteur pour recouvrer la créance de 41 virgule 467 milliards de francs CFA fisc bi rek mook Woodside xam nga waxoon nañ ci sëriñ mais ba léegi rek c'est au devant parce que nee nañu 1 milliard 406 millions 186 mille 567 francs CFA puisés dans les comptes de Woodside ouverts à Citibank. Mm. journal bee ko wax les deux parties devant le tribunal ce 12 août euh, ñaari parties nag war nañoo taxaw tribunal euh, muy euh, après opposition assignation déposée par le développeur du champ de Sangomar suite au redressement loole nag war nañ ci indi ay leeral sëriñ bu baax a baax mm. ci qu'est-ce qui se passe entre Woodside parce que nag li ñu koy tudd ci wàllum fisc fisc nag mi ngi bëgg bëri te koppar gi mi ngi bëgg mi ngi bëgg dajaloo loolu bokk na ci li nga xamante ni rek dinañu ci journal bi di libération wax na ko comme yeneen journaux yi tamit libéré na li nga xamante ne rek moom mooy corruption ak recrudescence des accidents comme ni ñu koy gisee premier ministre jël na ay mesures yu yu yu yu fort pour nga nag wax dëgg yàlla euh, euh, de fortes mesures pour que dëgg yàlla euh, accident yi mën a wàññeeku bu baax a baax beneen yéenekaay naka la xëyee tey Moussa ñu ñëw ci muy la tribune journalu Bougane Gueye Dany bi xëy na wax ci nommage du ministère de la pêche n'étant pas membre de PASTEF euh, Alhassane Diop moom daani salaamaaleykum ñu ni ko maaleykum salaam moom poste ba toogu fa yàgg fa moom est-ce que def na passation de service sax moom Alhassane li ko waral nag journal bi dikk na si mooy moom ci jëmmi boppam dafa euh, amoon benn mouvement de soutien à Amadou Ba journal bi moo ko wax dafa amoon mouvement de soutien euh, à Amadou Ba ci présidentielle yi mooy mars 2024 son soutien à Benno contre Pastef lui a coûté cher man damaa yaakaaroon ni on avait besoin d'hommes forts mais pas de couleur de parti loolu laa foogoon waaye nag journal bi xamal leen nañu ne moom mi nga xamante ni dañ ko nommé dage ministère de la pêche wàccee nañu ko journal bi nee na li ko waral mooy dafa doon jàppale euh, dafa am mouvement bu doon jàppale Amadou Ba ci élection présidentielle yi mu ngi noonu donc loolu tax na moom defagul sax passation de service donc dàq nañu ko daal ci gàttal mu ngi noonu Boy Diaw Aly Ngouille Ndiaye Moustapha Diop Ousa euh, Ousa Tertil fan la ñu seen gaal gi fan la teer ñoom ñii ndax ñu ngi waxtaan ci suuf waaw wala déet moom Idrissa Seck ah yéeme na parce nag. li ñuy gën a xalaat mooy sa sortie moom mi nga xam ne mooy Mame Boye Diao on verra la suite Aly Ngouille Ndiaye ma ngay bay foofa ca Jolof ki nga xamante ni rek euh, moom mooy euh, Doudou Ka moom i tamit ak Moustapha Diop fan la nu nekk ñun daal kenn la nu mën a xam fa mu ne mooy nguy ndax xam nañu ma nga Jolof di bayee cultivateur la du dëgg ñi ci des nag xamaluñu leen dara Bougane Gueye Dany mi ngi wax ci li nga xamante ni mooy limogeage yu Cheikh Dieng xam nga moom soos bu ne mu capp ca baaraamam moom Bougane euh, moom nag nee na transparence la ñu ci laaj dàq nga ma waroo ma dàq lii moo waral nga dàq ma sama ministère da ànduma ak moom ci lii et cetera entre autres ñu dàq ma ci nañu indi ay explication ci diggante Cheikh Dieng ak euh, ministre tutelle am ñu ñëw ci beneen journal naka la xëyee tey. Moussa ñu ñëw ci euh, lii quotidien lii quotidien nag moom dafa daal di euh, fësal l'éducation Touba rejette la réouverture des écoles publiques en langue française mi noonu Touba moom bañ nañ ubbi ñu ubbi école français fa nga xamante ni mooy biir Touba comme je l'ai dit nag souvent comme ni ma ko waxee démb waxtaan na neex borom këram bu ñu waxtaanee rek ñu ni xam ne Touba titre foncier la du dëgg mi ngi noonu donc euh, euh, télécom itam DG ARTP jette les bases d'une régulation euh, collaborative Dayiru Thiam di DG ARBT ARTP plutôt confronté na li nga xamante ni mooy défi yu bees pour l'évolution rapide des technologie loolu nag bokk na ci lu ñu mën a saluer bu baax baax a vivement que loolu daal di euh, euh, mën a en euh, tout Doudou Wade sur le retour de Karim on ne peut pas vivre à l'étranger et diriger le PDS démb moom mi nga xamante ni moom moo di Djibril Sakho wax na ko nee na Doudou Wade dina ñëwaat Waré Sarr et cetera ay mer la rek waaye loolu leen lépp ñoom parti bi dinañ ko waxtaanee ba nga xamante ni rassemblement la ñuy daal di gën a am que leneen ayca ñu ñëw ci beneen yéenekaay ni mu xëyee tey Moussa l'observateur journalu waykat bi sécurité alimentaire les zones de crise et les milliards euh, et les milliards de francs CFA de la riposte moom nag euh, wax na nous avons plus de 220 projets de lutte contre l'insécurité alimentaire éparpillés dans l'ensemble des 46 départements muy interview bu ñu amlee ak euh, Jean-Pierre Senghor euh, lii nag bu nekkente ni sotti na xëy na lu bari ci le panier de la ménagère dina wàññeeku bu baax a baax ay ca l'observateur ñëw na ba pare ci PCA un poste stratégique galvaudé du samay wax de journal bi moo ko wax ndax nee na li nga xam ni mooy PCA li ñu ko gënoon xamee mooy gérance de la bonne gouvernance autorité morale superviseur euh, de la direction nekkatul emploi boo xamante ni euh, jàpp nañu ne euh, emploi de sénécure la de représentation protocolaire ou d'animation de réunion du loolu rek y a plus important ci li nga xamante ni moom mooy PCA waaye dafa mel ni danu ko xaw a cofantal ndax nag palub kilifa ak nit dof mi ngi indi ay jafe-jafe wala boog mi ngi indi ay wax yu sew ci landerneau politique bu Sénégal mais également fi nga xamante ne rek mooy les Sénégalais dans la généralité. Déplacement annoncé, le premier ministre, le premier voyage du premier ministre à euh, l'étranger mhm. day génn dëkk bi moom Ousmane Sonko muy voyage am bu njëkk boo xam ne na ko def am na nag ñuy ñuy soufflé naan bu génnee ñu am jàmm <laughs> déclaration dootul am sëriñ ñu bëri ñu ngi koy wax waaye on verra lan moo ci am ay ci journal bi ba tey di journal Youssou Ndour bi mi ngi wax ci justice le conseil supérieur de la magistrature annonce Euh, annoncé pour aujourd'hui euh, chamboulement en vue mu ngi noonu conseil supérieur de la magistrature démb ñu ngi doon wax ci li nga xamante ni ñoom loolu la ñu bëgg même bu fekkee président de la république day des ci conseil supérieur de la magistrature bëgguñu tierce personne rax leen fan lañ ci toll ak naka la mbir mi di demee xëy na tey ñoom bu ñu defee seen déclaration wala boog ñu daal di ñuy gindi ci loolu dinañ ci gën a am lu ñu leer ñu ñëw ci beneen yéenekaay nan la xëyee tey. Euh, Moussa le mandat waaw kay le mandat bu Aliou Sow moom ñëw na ci actualité politique euh, sénégalaise Bougane réagit au revirement de Sonko sur le franc CFA waa Bougane moom fépp laa la wax sànq mi ngi ca loxo ba génn na ci euh, li nga xamante ni moom mooy mbirum Cheikh Dieng laale na ci mbirum franc CFA xam nga franc CFA nag nañu fàttaliku ne Ousmane ko yàgg naa génn di ko déplorer ak bëgg ñu am suñu monnaie bopp loolee la ca wund ak la ca buggaan ngay wax yépp di ngeen ko fekk ci journal bi di la mandat topographie et géomatique au Sénégal madame euh, Bendouma Fatou Thiaw lance une exposition innovante yii la ñu soxla des femmes comme ça yuy innover di génnee ay mbir di wax surtout sur le plan technologique ñu wane ni jigéen ñi xam nga tey jii bu fekkente ne sëriñ BFM ñoo ca jiitu du ñu moroomu gars yi mbag jigéen ñi ñoo ñoo ñoo nekk du ñu moroomu gars yi xam nga ni ñun fu ñu taxaw rek xam nga ni fu ñu taxaw rek ñun du ñu moroomu gars yi waaye li ñu seetlu ba seetlu ko te muy sama waxi bopp mooy gouvernement bi daal néew nañ ci lool ak direction yi néew nañ ci lool beneen journal <laughs> beneen journal boo xamante ni euh, xëy na tey jii euh, wax ci actualité muy bés bi le jour bés bi le jour nag moom euh, saisine du conseil constitutionnel énigme sur un avis énigme maanaam loo xamante ni la kenn xamagu ko objet euh, l'objet est-il euh, la date de la dissolution ou meilleur délai pour le parrainage ndax nag dissolution assemblée moom bu amee parrainage bi nee nañu dinañ ci taxaw seetaat seetluwaat ko bu baax a baax point d'interrogation lay doon sanu jonn délai dix jours la am délai le délai de 10 jours du président de la République est passé fukki fan yi président amoon pour tontu assemblée nationale jàll na ci ginnaaw Ndiaga Sylla ñu wax moom wax na ni organiser des élections anticipées mi-novembre pour l'adoption du budget en décembre moom itam bokk na ci lu nga xam ne fësal na ko ci journal bi di bés bi le jour réaction aux nominations de Kilifeu et Nit Doff ça rappe sans rime bien sûr que ça rap et ça rime aussi parce que nag euh, euh, boo xoolee euh, nit dof ak moom ak moom mi nga xamante ni mooy kilifa Chaka Babs ak Kopa ñoom ñi ngi clash ñaari rappeurs yi parce que nag bu ñu fàttalikoo ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy Simon Bismick Lène ba leen président Macky Sall dalalee présidence de la République laa ilaha illallah moom nit dof wax na ca lu ne kilifa it wax na ca lu ne aujourd'hui ñoom ils sont au de la République parce que nommé nañ leen kenn ku nekk ci ay poste neexal la waaw wala déet journal bi boo parce que nag euh, euh, moom chaque Babs ak COPPA am na lu ñu ci wax euh, Freelord de Y'en a marre nee na mouvement hip hop daf ci war a kontaan ci li nga xamante ne mooy nomination ñaar ñii mouvement hip hop daf ci war a kontaan waaye nag li ma jaaxal mooy mouvement hip hop. en général wala benn parti kontaanuñu woon ci ba président recevoir ñoom Malal Talla et cetera fi nga xam te ne moom mooy palais de la république kilifa nag un PCA sous contrôle judiciaire loolu itam bokk na ci lu ñu jaaxal ndax bu ñu fàttalikoo moom nii di kilifa dañ ko toppe woon mbirum passeport du dëgg ba yoon tegoon ko loxo ay temps après génnewaat ko waa léegi nag euh, contrôle judiciaire lañ ko joxe woon bàyyi ko bàyyi nëggandiku léegi fal nañ ko PCA et la suite dans cette affaire là hmm, c'est la grande question ñu ñëwaat ci beneen journal yéen a kaay nan la xëyee tey muy le soleil le soleil nag wax na ci bu Boubacar kamara maanaam ubbil na ko ay buntu waxtaan ak moom moom Boubacar Camara nee na nag li mu xalaat ci gouvernement Sénégal yépp boo ko di nga ko fekk si euh, journal bii di le soleil ndax nee na reddition des comptes ne doit en termes de séquence mais comme activité permanente Piemonte. moom Boubacar Camara et ñuy luwee bu baax a baax li nga xam ne mooy xam-xamam député yi euh, dañoo am prérogative euh, boo xam te ni ñoom ñoo ko moomal seen bopp la seule leçon de régler la crise c'est dissoudre l'Assemblée nationale pour régler crise bi mu jeex parce que jëwriñ bu njëkk bëggut a taxaw ci assemblée boo xam ne amu fa majorité ndax nag li muy bañ euh, ñëpp xam nanu ko bu fekkente ne nag bëgg nanu koo régler nanu dissoudre assemblée rek ñu dem ci ay élections législatives ci nu mu gën a gaawee moom nag nee na condition yi nga xamante ni nekk na fa encore réunis euh, pour que nag def appel à candidature moom loolu la wax maanaam daal euh, yor na bale baleel leen yoon bi ba mu set waaye itamit joxe leen ay excuses yu bari moom Boubacar Camara ci journal bii di la Soleil ñu ñëw ci beneen yéenekaay boo xamante ni xëy na tey euh, Moussa muy Vox Populi l'ange de la mort s'acharne sur les talibés temps yi nag ñu ngi koy seetlu bu baax a baax talibé yi ñu ngi faatu rek ñu ngi faatu rek soit taalibe accident écrasé moom journal bi mi ngi koy wax bëgguma si ñëw euh, moom taalibe juróom benn at la am donc euh, euh, foofu ca Kaolack daf koo fiir dee boobu ba léegi nii mi ngi metti fa nga xamante ni rek moom moo di Touba bilan chavirement Saint-Louis ñaari nit Euh, ay euh, xale yu ndaw la ñu ci daal di repêché et sans corps et sans vie plutôt euh, mercredi 17 juillet taalibe bu dee ndax benn charrette moom moo ko daal di renversé bokk na ci tamit guddi àjjuma 2 ak samedi 3 au juróomi taalibe yoo xamante ni dañoo faatu ca accident ba am ca Tiwaawoon donc fi mu ne nii journal bi moom xëyee na ni daal malaaka mawti daa mel ni daa topp taalibe yi na fi yam mu daal di loon loo xam ne dafay jeex taat après l'administration territoriale le chef de l'État va chambouler la magistrature xam nga gis nañu ni li nga xamante mooy préfet yi genn genn wàllu préfet yëpp dañ leen a promouvoir ñu ne ay gouverneur ba mu des sous-préfet de Dakar pro dañoo wax ni dafa am euh, appelé à d'autres fonctions ci ñu xamagul waaye nag euh, moom président ginaaw bi mu paree si préfet yi moom ñëw na ci li nga xamante ni euh, l'État va chambouler la magistrature on attend ndax président dina procéder li nga xamante ne mooy réunion bu njëkk ci conseil supérieur de la magistrature tey ca tey jii dafa fas yéenee daje ñi nga xamante ne moom mooy waa conseil supérieur de la magistrature tey ñu séq ab waxtaan ay changement loolu la journal bi wax en profondeur en vue euh, de euh, li nga xamante ni rek euh, mooy déclenchement de la traque de dignitaires de l'ancien régime ba léegi mi ngi ci traque bi ba léegi ñoom ñu ngi ci traque bi te bokk na ci sujet yi ñu war a waxtaanee donc ñu ñëwaat ci beneen yéenekaay lan la xëyee tey lan la xëyee tey euh, Sud Quotidien procès en diffamation li en scandale du pro du fonds force Covid Mimi jour et gagne a-t-elle gagné oui ou non xoolal ci journal bi ndax délibéré bi ci affaire boobu mu ngi wax euh, mu ngi jëmoon ci li nga xamante ni mooy force euh, fond euh, fond force Covid yi opposant Aminata Touré ak Mansour Faye démb daanaka àtte nañu ko donc tribunal bu Dakar mi ngi wax ne nanu la relaxe pure et simple d'Aminata Touré au bénéfice de la bonne foi man nag loolu jaaxal na ma sama tubaab xóotul nag du dëgg sama tubaab xóotul dem euh, kii euh, nu mu tuddati sax Seynabou sama tubaab xóotul de Mansour Faye est débouté de euh, ses demande car jugé mal fondé loolu la journal bi wax. man nag war nañ maa wax lii lan la de de de la bonne fois bi moom lañ. waaw la bonne foi ndax xam nga dañ ni infraction pour ñu mën a wax infraction dafa am il faut mu am les trois éléments. waaw mooy élément matériel c'est-à-dire il faut que mu am euh, comme euh, kii bu ñu waxee sàcc il faut que sàcc bi am ba pare. mooy l'élément matériel. Euh, l'élément légal mooy la fait que doo xamante ni. Euh, loi bi da koy prévoir ba nga xamante ni boo ko defee dañ lay daal di ñëw ki l'élément intentionnel mooy il faut aussi nga am volonté wu daal di jël euh, sàcc loolu fii nii bu ñuy wax ci euh, bonne foi bi ci élément intentionnel bi lay jël est-ce que Mimi Touré avait réellement l'intention de nuire l'image de Mansour Faye d'après le tribunal non raison pour laquelle elle a été acquittée bàyyi ko noonu oh, ah yàlla baax na ba tey waaw yàlla baax na Mansour Faye moom ñu ne ko demal demal nga nelawi loolu moom dem nañ ko de côté alors ñu dem si beneen yéenekaay nan la xëyee tey ji muy euh, ñu ñëw ci tàggat yaram muy record record nag xëyee na ci JO 2024 yi finale bi France Espagne kii pour l'or olympique France Espagne koo waral France France ngeen faral France ngeen faral Espagne waaw yàlla xam nga ne man moom France fu mu dugg maa ngi sa <laughs> non France moom fu mu dugg rek maa ngi Fassade. non non Espagne moom sama rek. maa ngi France Kylian Mbappé moo tax bàyyi leen ma ne France Mbappé sama doom la yow sama doom la ñu ñëw ci beneen yéenekaay boo xam ni def na tàggat yaram. Mhm. muy euh, réew mi sport gis naa tey nag journaux yu bari daal di koy titré muy le foot africain endeuillé Issa Hayatou est décédé à Paris moom nag euh, il fut. l'ayatollah de à la CAF pendant 30 donc euh, sëriñ kii xam nga ko. non xamoo ko. ah waaw gars yi nañ ko sax. président CAF. Mhm. que pas athlétisme football africain. bi mu bëri woon man moom je suis pas trop sport naa dégg turam mhm. d'accord mu ngi noonu JO Paris 2024 tous les athlètes sénégalais éliminés ñaata lan amoon sax set set set sénégalais la woon. yàlla baax na ñu indi beneen am na beneen yéene kaay sport <laughs> yàlla baax na bañ du ree jàmm yàlla baax na de ñu indi beneen yéene kaay mhm. jeex na waaw jërëjëf merci beaucoup à vous bu leen fàtte nag dem jëndi journal bu mag bii di source a ndax nee naa leen les informations en temps réel ñoo leen koy jox mais juste et vrai dans une poignée de secondes wala dans une minute ñu dalal suñu ganu bés bi fas yéene seqante ak moom waxtaan à tout de